population bu fas Louveau jaaxle lañu def li ko waral di liggéey bi nga xamante ni tàmbale woon nañ ko fa boobaak léegi mu mat ñitti at te pareegul indil leen ay jafe-jafe. ay at a ni ñuy vivre li suñu miir yéex suñu yëpp yàqu na poussière bi mënatoo def dara ci Fass Louveau. mu daal bu yeggee ñu defal ñu ay canalisation ñu sant. waa ji di ab ñawkat ci boobu boobule bërëb li muy xamle mooy. bu weesoo seen wér gu yaram seen liggéey itam indi na leen ci ay jafe-jafe ndax poussière bu metti ñun moom waxaale ñu ñun atelier bi fii ñu nekk nii moom fi ñuy ñaw moom ñaw bu ñu ñaw bu ne buñ ko yóbbee borom da koy fóot yére bu set mu dootuñ ko fi am. ci noonu kii di responsable des services techniques de la mairie de Gueule Tapée Fass Colobane daal dinay indi ay leeral ci li waral yàgguteeg liggéey boobu boobule waaye itam di wax ne am nañ yaakaar ne ci diir bu gàtt liggéey bi dina pare. il trouve que bu dee boobu noonu bu nekk fas Louveau li ko retardé mooy dafa amoon projet bi yàgg na depuis vingt deux mille vingt deux laa mun a wax deux mille vingt deux daal ah euh, euh, la waroon démarrer malheureusement ñoom en interne ils ont eu des problèmes ba pas les savoir c'est en interne ils ont ils avaient arrêté. depuis commencé nañu liggéey bi waat ça veut dire donc euh, man lenteur boobu gisuma ko quinze jours tey travaux yi fu mu ne nii entre soixante dix pour cent lañ nekk maintenant nag. population yi moom ñun on peut les comprendre parce que lu ñu bëgg daal la ñuy def mais en réalité on fait l'effort ñu ngi def effort pour euh, loolu mu gaaw daal te ñu ngi ci temps yi yaakaar naa daal. ba léegi suñu xel dalagul ndax pour suñu xel daal il liggéey bi pare. ñun lu ñu si mënti nekk rek na liggéey bi yegg travaux bi daal na yegg ça fait trois ans ñu bàyyi ñu ban bi ban bi xonq bi. ñu ngi ñaan daal ku ñu dimbali ginnaaw nag fii yéen seen télé bi mooy leeral lépp fi lay leeree leeral leen ni ko ñu ngi yuuxu de ñun waa Fass Louveau. mu nekk ay jafe-jafe yoo xamante ni ña dëkkee ca Fass Louveau ñu ngi koy jànkonteel boobaak léegi mu mat ñetti at ñoom nag li ñuy xamle mooy ak lu mu ci mënti doon rek na liggéey bi daal di yegg